aawuzu billahi min ashaytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di jiital ci nuyo bi ak ziar boobu nag ci di leen ñaanal leen ballu àq ci di leen bal ak ci at mu bees mi nga xam ni at mii nga xam ni mooy waaj a jeex ca ñu fas yéene dugg ci atum jullit ñi muy at mu bees mi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar yéen ñi nga xam ni yéenay ànd ak ñun ci fii ci VF TV yéen ñi nga xam ni yéenay ànd ak ñun ci YouTube bi di ànd ak ñun ci Instagram bi ak di ànd ak ñun ci euh, Facebook bi ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siyaar mbokk yi mu mel ni suñu temu tey nag message bi li mu ñu indil tey bi ñu ko génnee li mu ñu jox mooy xaqi ki nga xam ni moo di boroom kër ci soxnaam ak xaqu soxna ci boroom këram ca mooy xaqu zawji ala zawja xam ngeen ni suñu waxtaan wi jàll ñi ngi ñëwoon ak yéen ci jigéen ak importance bi nga xam ni moom la am ak wàccuwaay bi nga xam ni moom la ko suñu borom subhanahu wa taala jox waxoon naa leen ni leen jigéen rek moom la yàlla tànnal aw saar ci biir alquranul karim tudde ko ko jigéen rek moom la yàlla tànn defal ko mu àgg ci martaba boo xam ni indi na nit koo xamante ne nii bi mu dikkee moom moo jëkk plaidel yaayam waaye moom moo jëkk yëkkati kàddoom wax ni suñu borom moom moo ko tànn def ko ab yonente moo ko jox ab téere wax ko mu mu jubbante ay nit kooke sell ku jigéen sell ci la demee ba nga xam ni mën na koo indi ci yàlla dogul mu jaar ci mu jaar ci borom kër kenn ku ci nekk xam na ne tamit boo duggee ci alquranul karim suñu boroom jox na fi jigéen wàccuwaay boo xam ni soo dee xool sax jox ko jigéen lan moo waral lool li ko waral mooy importance bi nga xam ni moom la jigéen am parce que jigéen moom mooy magasin suñ boroom subhaanahu wa taala bi nga xam ni ci lay denc lépp lu mu soxla wax naa la nee naa la jigéen ñi ci la yonente yi jaar jigéen ñi ci la sëriñ si jaar jigéen ñi ci la ñu baax ñi jaar amaana nag secret boobu nga xam ne moo nekk ci moom moom la suñu boroom xam-xam ni ak defaroom ci la àdduna bépp di defaroo waaye ak yàqoom ci la àdduna bépp di yàqoo looloo tax mu tànnal ñu jigéen jooju wàcce ko wàccuwaayam teg ko fi nga xam ni fi la ko teg ba pare def ko nag mu nekk koo xam ni moom moo war a yore njaboot gi moo leen war a yar tette leen jigéen jooju nag lan mooy ak ji diggante moom ak boroom këram suñu boroom subhaanahu wa taala wax na ci alquraanul karim ni arrijaalu qawwaamuuna ala nisaai bima faddala allahu baadahum ala baadin wa bima anfaqu min amwalihim suñu borom nee na góor ñi ñoom ñooy feete kaw jigéen ñi ci wàllum daraja waaye wàllum daraja jooju liñ ci jublu mooy cër bi nga xam ni góor soxla na ko ñu war ko ko jox jigéen ji war ko koo jox cër boobu jigéen ji war na cee bàyyi xel bu baax a baax ndax itam dañu ko dënk nit dañu ko teg ci ay loxo loxo yooyu ñu ko teg na kooku ñu ko teg ci moom kem lu mu ko gën a fonk kem lu mu ko gën a teg palaasam muy gën a àgg itam am itam euh, meññat wala boog àgguwaay bi nga xamante ni moom la ñuy séntu ci moom waaye suñ borom wax na ci alquran wala hunna mislu alladi alayhinna bil maaruf wala rijaali alayhinna daraja nee na njëkk ji nga xam ni moom la ñuy séntu góor war koo sedd jigéen moom la ñuy séntoo jigéen war koo sedd góor waaye nag nañu xam ni toujours tamit kaddu gi am na ku ko waree a yore koo xam ni mooy ki nekk ci kër gi ca mooy ki nga xam ni moom moo jël palaasu xawaamuuna ala nisaa boobu kon xaq jooju nga xam ni moom la ku góor ku yareel ku jigéen ki bokk na ci kóllëre gi nga xam ni moom la leen yàlla boole ci mooy sëy bi ci boppam mu bàyyi ko xel bokk na ci tamit liñ koy tànnaloo mooy cofeel gi mu war a am ci moom yëg-yëg bi nga xam ni moom la war a am ci moom waaye tamit kóolute gi nga xam ne moom la war a am ci soxnaam soos ak teggin yi nga xam ni moom la war a doxale diggante moom ak soxnaam soos kon am na ci biir àq jooju loo xam ni ku góor ki moo ko yeyoo ak loo xam ni ku jigéen ki moo ko yeyoo waaye am na loo xam ne ñoom ñaar ñëpp ñoo ko ñoom ñaar ñoo ko bokk kenn ku ci nekk war na koo bàyyi xel kóllëre googu ma lay wax ci la ci la bokk jigéen ji war naa bàyyi xel kóllëre gi nga xam ne moom la ko yàlla booleel diggante moom ak boroom këram mu di ko sàmm ba lépp loo xam ne luy indi ayib la wala muy jaxase seen diggante du bàyyi ko ci moom ku jigéen kooku waaye ku góor koo tamit noonu la ko war a defee moom itam war na cee bàyyi xel bu baax a baax cofeel gi nga xam ne ku góor ki war na ko am ci ku jigéen ki ndax yërmande mën cee juddoo jigéen jee timit war naa am cofeel gu mel noonu moom itam ndax mu ñu mën koo soutenir waaye ñu mën koo ñu mën koo yor ci biir kër gi bi ci tegee moo di ni siqa bi nga xam ni kenn ku ci nekk siqa boobu moom la war a am sa digganteeg sa moroom ca mooy kenn ku nekk am confiance bu mat sëkk sa diggante ak sa ak sa sa moroom confiance nag damay wax ni dafa am lu koy lal nit ki bu fekkee da ngeen di dund yéen ñaar ci seen commencement nga commencé di ko woon ak njub di ko woon ak dëggu di ko woon tege ciw yoon loola mooy continuer ci seen diggante yéen ñaar waaye nag diggante bi bu ngeen ko dooree ci ay naxante door ko ci ay njuuj njaaj door ko ci loo xamante ni du dëgg wala boog werul na ngeen xam ni ëllëgati si biir pour mu feeñ ci seen diggante ak ñàkk kóolute day yomb lool beneen bi ci tege moo di teggin jigéen ji ci boppam war nay sàmmonteeg teggin yi nga xam ne moo dox diggante moom ak boroom këram ndax kilifaam la waaye tamit boroom kër gi war nay sàmmonte teggin yi dox diggante moom ak soxnaam si ndax nawle la ndax soxna si yàlla def leen a boole yéen ñaar war nga ko jàpp ngir boole gi leen yàlla boole yéen ñaar war nga ko jàpp ngir li mu yor ci biir kër gi war koo gérer nga xam ni yow la fi nekkal ci genn paar bi waaye war nga koo jàpp ngir li siqa wala boog amaana bi nga xam ne muy kóolute gi nga xam ni kóllëre bi nga xam ne moo dox seen diggante yéen ñaar ci yàlla wax ci alquran ni bu ëllëgee yowmal qiyaam ñi nga xam ne dénkoon naa leen kóllëre ñu war koo sàmm dinaa leen ko dinaa leen ko laaj ëllëg ni qiyaama nisaaukum xarsun lakum fatu xarsakum ani shitum wa qaddimu li anfusikum dafa am ay jigéen góor ñoo xam ni dañoo jar dañoo dañoo jàpp ni jigéen gi ci boppam moom rek moo war a dox rôle bi mu war a joué diggante moom ak boroom kër ba jàpp nañu ni li ñu war a def ci biir kër gi lépp jigéen gi moom moo ko war a def jigéen gi moo war di set jigéen gi moo war di jonge jigéen ji moo war di defar yu baax jigéen ji moo war di teeru jigéen ji moo war di neexal jigéen ji moo la war di yaatal mais loolu ni mu waree ku góor jigéen ki noonu la waree ku góor ki aussi parce que mbir mi dañu koy partager lu ñuy séddoo la kenn ku ci nekk xam na ni benn loxo du tàccu ci it benn lamitam du yëngu kon ñaari nit bu ñu àndee lépp loo xam ni luy neexal seen diggante leen ñoom ñaar lépp luy indi jàmm lépp loo xam ne dana defar seen couple ñoom ñaar kenn ku ci nekk def cee war a taxaw kon rôle bi nga xam ne góor gi wala moom la war a jouer na ko jouer ba mat sëkk waaye jigéen jee tamit bi mu war a jouer na ko jouer ba mat sëkk bu ko defee ñoom ñaar ñëpp bu ñu dajee nag ñoom ñaar dañuy daal di gis ni eh, la ñu bëggoon ci ñaar ñuy ànd day daal di am am ci seen diggante ñoom ñaar kon suñu waxee ni jigéen ñi seeni tool lañu tool nag bu ca boroom demee damay wax ni heure bu neexee boroom mën naa seeti toolam waaye tool ku ko seeti soo demee fekk mu bari ñax doo am lu la neex mais pour mu bari ñax pour mu bañ a bari ñax nag yow yaa ko war a bay kon to jigéen ji soo bëggee saa yoo ko jàkkaarloog moom am ci moom lu la neex sa warugar sa digganteeg moom da nga koy def moo xam ci wàllum dund la moo xam ci wàllum dëkkuwaay moo xam ci wàllum solin moo xam ci wàllum nekkwaay moo xam jàmm joo xam ni moom nga koy may ba boo jàkkaarloo moom mën a jàkkaarloo ak i bëñam waaye mën a jàkkaarloo ak kanam gu rafet tabarakallah macha allah bu ko defee seen diggante yéen ñaar jàmm rek jàmm rek di fi am kon faatu xarsakum man ngeen a dem ci seeni tool waxtu wu leen neexee waaye nag waqaddimu li anfusikum na ngeen waajal seen bopp na ngeen xam ni tool ba lu ngeen fa yóbbuwul du ngeen ko fa fekk kon soxna si loo ko defalul waroo koo séntu ci moom li tax loo ko defalul waroo koo séntu ci moom mooy role bi mu war a joué en tant que soxna dina ko joué mais nag boo bëggee boo ko gisee jàkkaarloog moom bég ngar lamu sol dee ko solal yére yu rafet soo bëggee boo jàkkaarloog moom kontaan ci kanamam gu yaatu dee ko wax lu ko neex dee ko def lu ko neex botto jàkkaarloog moom bég waaye soo bëggee saa yoo ko gisee gis ko ci taar gis ko ci ab melokaan na nga xam ne la ñu war a taarale seen bopp wala lañ melokaan melokaan wa ñu war a melal seen bopp ñi ngi koy xaar ci yow ku góor gi kon nag tool bi boo bëggee saa yoo fa demee kontaan te saa yoo fa demee mu mën laa jural meññet saa yoo ko bayee tamit mu mën laa indi li nga bëgg dangay fexe ba tool booba nga fonk ko waaye tool booba tamit nga def fa la nga fa la nga fa war a def fa nga ko war a féete boo ko fa féetee rek danga gis ne saa yoo jàkkaarloog tool bi da nga bëgg waaye sa soxnaa tamit li nga ko war a defal en tant que euh, borom kër saa yoo ko ci féete tamit saa yoo ko saa yoo ko gisee tamit da nga kontaan ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon jullit balaa mat sëkk jullit li mu bëggal boppam daf koy bëggal moroomam loolu day dox ba ci biir sëy dañuy gis jigéen ñoo xamante ne nii seeni boroom kër sax dañ leen di iñaane ci yenn saa yi am na programme yoo xam ne suñu ca duggee ñu gis leen ci benn day wala wenn melokaan wi day mel ni ñoom dañuy xeex ñoom sax ci wàllu googu day mel ni léegi doonatul couple koo xam ne dangaa war a mottali sa morom waaye léegi dafa mel ni benn duo la seen diggante waaye benn kujje la ci seen biir looloo tax jigéen ñi war góor ñi war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax góor ñi war nañuy bàyyi xel ci nii jigéen ji bu la ko yàlla joxee la nga sa bopp moom nga ko war a jëkke yéene ngir yàlla nga xool ci yor bi nga ko yor nga xool ci sa diggante ak sa boroom subhaanahu wa taala waaye war ngaa jiital ci biir itam yow ku jigéen ki li ñuy wax warma sa boroom kër na nga ko warmaal sa boroom kër na ko suturaal sa boroom kër na ngay doxale njekk seen diggante yéen ñaar sa boroom kër na fas yéene dundanteeg moom dundin bu rafet loolu ma wax nag comme ku góor ki ni mu ko waree comme ku jigéen ki aussi ni mu ko waree ku jigéen ki war ku góor kee tamit war naa wormaal soxna si nekk ci biir kër gi na koy sutural jigéen dañ koy suturaal ndax su matoon duñu ko teg ci say loxo bu yàlla ne ar-rijaalu qawwaamuuna ni nisaa c'est parce que comme ci ñoom lañu ko bind dañoo manqué reconnaître nañu manqué googu moo tax ñu yëkkati ko teg ko ci sa loxo bi ñu koy indi ci yow guddi lañ ko indi tey dañ koo muur boole ci te kon bu ñëwee ci yow yàlla moo jëkk a wax ak yow ne la soxna si su agsee ci yow na nga koy suturaal lu tax mu ne na nga koy suturaal xam na ni soxna si munta ñàkk ay faay yu muy def moo xam ci jëfinam lay doon moo xam ci waxinam lay doon mu ne nag bu dee faay boobu am na nanga ko suturaal looloo lay xamal ne na suñu borom ku bàyyi xel jigéen la fonk na ko lool jox na ko tamit wàccuwaayam tagg na ko fu baree baree bari ci alquran bañ na ko ba àjjana ji nga xam ne moom la ñëpp di wër àjjana ji nga xam ne ñoom ñëpp nit ñëpp ma dañuy jaamu yàlla ngir mën a dugg ci àjjana jooju yàlla bi muy tagg àjjana la mu jëkk tudd ca biir la gën a neex gën a rafet ci biir àjjana mooy ay jigéen ñoo xam ne ñu taaru lañu xuurun maqsuuraatun fi lqiyaami nee na lam yatmishunna insun qablahum wala jaanun ni mu ko taggee ci alquran ñëw na ay yooni yooni yoon kon jigéen suñu borom bàyyi na ko xel bu baax a baax bokk na cee tamit suturaal gi ma lay wax nii kenn ku ci nekk na suturaal moroomam waaye sa boroom kër bu amut ñëpp yëg ko bu la defalul ñëpp yëg ko su mënut ñëpp yëg ko moo xam ci dooleem moo xam ci poosam loola du sutura loola taxut nit di sëy kon yàlla moo wax ne na ngeen suturaalante ci seen biir ku góor ki nay suturaal ku jigéen ki ci faay yi muy def erreur yi muy def ak li nga xam ne mi ngi ciy jaar ca du aw yoon ndax loolu manqué gu mu moo tax mu di ko def waaye bu matoon kenn di ko yëkkati di ko teg ci sa loxo dundante ki ci njëkk kenn ku ci nekk wa na bi maarufin la alquran wax na ngeen dundanteeg seen soxna yi ci njëkk kenn ku ci nekk na xam ni gor la séqal na nga ko lebal yëfi gor del wax ak moom waxiinu gor waay del séq ak moom itam séqinu gor bu ku nekk goree ci lu dox sa digganteek sa moroom loola benn jafe-jafe du ca mën a am moo tax ci sutura soos suñu borom nee na wallati taqaafuuna nusuusahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaaji fa in ataanakum nag wadribuhunna fa in ataanahum fala tabtaqu alayhinna sabilan yàlla nee na seen soxna yi su ngeen demee ba ragal ni am ngeen jafe-jafe ak ñoom te it mën nañu fee jaare dem ñibbi seen kër suñu borom dafa wax nii su fekkee dañoo juum ñoom jigéen ñi xam ne ñii dañuy juum ndax góor gi dina juum ku jigéen ki dina juum waaye ñoom itam bu ñu juumee yàlla teg na la siw yoon nee na fa'izuhunna na ngeen leen woo ngeen yedd leen waar leen leeral leen sëy li ko tax a jóg leeral leen seen digganteeg seen boroom ak àq ji nga xam ne moo dox diggante kë boroom kër euh, mooy sëriñ bi ak soxnaam su fekkee topp nañu leen ci loolu nee na baax na bu ñu leen toppul wax juróoxu na ngeen gàddaay leen fil madaaji ca tëdduwaay ba ca mooy ngeen xañ leen seen bopp waaye nag na yem ca tëdduwaay ba ci biir kër gi bu mu génn kër gi waaye bu mu génn néeg bi gàddaay gi bu mu génn néeg bi ndax nawleem yi mu nekkal ci biir kër gi suñu boroom bëggul ñoom ñu xam ni yow mii kat kii dafa am lu ngeen seq yéen ñaar ci ay mettital ci biir ci biir kër gi moo tax mu ni wax juróoxu na na ngeen leen gàddaay ji ay ca tëdduwaay ba su fekkee gàddaay ngeen leen ca tëdduwaay bi ñu topp leen baax na waaye bu ngeen génnee nag ci biir néeg bi na mel ni dara mësu taxew bu ñu leen toppee ci loolu baax na bu ñu leen toppul ci loolu nag wadribuhunna ngeen doog leen a dóor waaye ci biir dóor boobu naka la ñu koy defee ndax boo ko jàngatee lislaam ni mu ko indee danga gis ni dóor bi daanaka aw tur lay doon turu xupp lay doon waaye dub dóor nee na wahjuruhunna na ngeen leen gàddaay fil madaaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum bu ñu leen nangoo topp nag falaa fala tabtaxu alayhinna sabilan na mel ni dara mustaxew bu leen leen topp bu leen wax ni yéena ma defoon nangam démb yéena ma waxoon nangam wala yéen a ma xoole woon bët sàngam waaye na ngeen fàtte lépp mu mel ni dara mustaxew loolu mooy wane ni yàlla xam na ni ñoom matuñu ca dañuy juum ca bu ñu matul ñoom dañ leen a war mottule bu ko defee yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ko laajee ni ko lan mooy xaqi boroom kër ci soxnaam dafa wax ni su lekk na ko jox mu lekk maanaam bu mu lekk bàyyi ko bu mu naan bàyyi bu mu woddu bàyyi ko maanaam na koy dëkkal na ko dëkkee waaye tamit na ko na ko suturaal na ko sàng maanaam na ko jëndal ay yére yu mu war a sol ak yu mel noonu ak fu mu war a dëkk boo àggee ci dóor itam nee na wala tadribul wajha bul dóor ci kanam wala tuqabbih bul bàyyi léegi tey bul bàyyi ab gaañu-gaañu bul bàyyi benn màndarga boo xam ni bu ñu ko gisee dañuy xam ni kii doon nañu ko dóor wala boo kii doon ko doon nañu ko mettital te it nag nee na boo demee ba di ko gàddaay tamit bu ko gàddaay ci dul ci biir néeg bi waaye soo xisee ba génn néeg bi bu ñaar ak ñett xam ni yéen ñii am na lu mu dox seen diggante loolu nag kon ñaar lay boole day boole xam goo xam ni yàlla xam na ni jigéen ñooñu matuñu ba pare mu bëgg ñu xamee ko noonu waaye tamit xam ne dañ leen a war a mottali dañ leen a war a tane yii ma leen tuddal nag ci la mun a qawwaamuuna ni nisaa di taxaw bu ñu nee góor ñu ñoom ñoo tane jigéen ñi ñoom ñoo leen féete kaw foofu lañ leen war a féete kaw ca mooy ñu dàq leen a muñ ëpp leen maîtrise gën leen a mën a tolloole waaye gën leen a mën a tolloore waaye tamit mën a sonn ngir ñoom mën a yëkkati di joxe seen alal ngir ñoom man leen a dundal man leen a wodd man leen a suturaal waaye tamit man leen a yiir man leen a aar bu loola amul rek day mel ni kon yow kawe gi nga war a kawe góor jigéen nekkul nii ci beneen façon la ci anam gii la mën a doon kon boo amut lii maîtrise bi amoo man-man boobu noonu amoo ko day mel ni yow kon aptoo pour mën a kawe jigéen ñooñu kon wax sinu ilayhinna na ngeen di rafetal jame ci seen soxna yi ndax soxna si nga xam ni yàlla daf leen a boole yéen ñaar ku nekk xam ne ni ñaari nit buñ dee ànd kenn ku ci nekk dina am réeroo ak moroom bi waaye nag lépp itam na nga fexe ba mu rafet na nga ko tane ci wàllu googu wala tansawul fadla baynakum yàlla nee na ji nga xam ni muy ngëneel kenn ku nekk na jéem a sàkku ngëneel ci sa morom ku góor ki ni nga xam ni ku jigéen ki ne lay sàkkoo ci moom bànneexam di sàkku ci moom ngërëmam ku jigéen góor kee tamit na jouer rôle boo xam ne daf ko yombalal ngërëm loolu waaye daf ko yombalal pour mu mën a am bànneex boobu waaye tamit ni mu bëggee ci moom bànneex bëggee ci moom mbégte moom itam nay bàyyi xel ci nii kii mu ko seqal nit la comme moom te itam li mu soxla ci moom rek moom itam moom ku jigéen ko loolu la soxla ci moom te ngeen di maandu nag ci seen digganteeg seen soxna yi yàlla nee na walan bay an taadilu bayna nisaaikum munoo leen a maandu ba yamale leen képp ni ñaari baaraam yu tolloo waaye nag falaa tamilu kullal mayli bu leen jeng ci yi nga xam ni da ngeen cee war a maandu ba mi fees ba nit ñi di ko xam ci yéen bu ñu demee ba nga xam ni euh, wàllum maandu ci sa diggante ñaari soxna moo ñu tax a jóg dinañ ko jël tem mën naa am bii di ñëw incha allahu taala ñu fas yéene cee waxtaan ak yéen waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga ko soutenir waaye na nga ko matalee tamit ci wàllum lekk ci wàllum soluwaay waaye ci wàllum dëkkiin ci wàllum nekkiin waaye ci wàllum njaboot gi ak ci wàllu sàmm lépp itam na nga ca bàyyi xel bu baax a baax ba. àq ji nga xam ni moom la leen yàlla boole nga mën a fexe ba nga xam ni lenn ci du tege ci sa kaw yow ko góor gi suturaal si ak dëkkandoog wax nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi ki gën a yées ci nit ñi mooy koo xam ni ëllëg yowmal qiyaam ki nga xam ni wàccuwaayam mooy wàccuwaay bi gën a ñaaw ci wàccuwaay mooy ji góor goo xam ni la muy séq ak soxnaam su génnee daf koy wax bu ñu séqee bànneex bu génnee wax bu ñu gi séqee bu génnee tasaare ko waaye bu ñu seqee loo xam ne sutura la war a doon itam su génnee di ko weer ci biti wala mu di ko tasaare ci biti jigéen dañuy wax ni dañu la ko jox mu manqué soo ko yoree gis ni manque manque boobu munoo ko mottali même boo ko dee bàyyee tamit na nga ko bàyyi ba pare suturaal ko ndax yàllaa la gën a xam ne manqué na ca doxul di leen weer yàllaa gën a xam ne yow itam manqué nga ca doxul moom itam mu di la mu di la weer ndax kenn complété wul yàlla rek moom moo yàlla rek moom moo man góor gi ci boppam dafa war a am sutura ndax bu melul noonu kat ëllëg yawmal qiyaam ci ñi gën a yées lay bokk kon bokk na ci àq jooju kon topp gi nga xam ne ku jigéen ki moom la war a topp borom këram ak taqoo gi nga xam ne moom la war a taqoo këram ndax itam jigéen ji bu fekkee dañu ko jël ngir mu gérer kër gi dañu ko jël woolu ko mu jur njaboot gi ñu wóolu ko ngir mu war leen a yor war leen a teg ci siraatul mustaqim bu ku góor ki génnee mu génn ànd ak moom dem kenn desatul ca biir kër ga day mel ni rôle bi ñu ko joxoon mu waroon ko jouer rôle boobu day rôle boobu day manqué te kenn ku ci nekk xam ne jamono jii ñu toll rawatina góor ñi jigéen ñi ñoo leen war a gën a des ci kër yi ndax jigéen ñi ñoo leen gën a jigéen njaboot gi te yitam ñoom ñoo leen war a ñoo leen war a yor ndax bu ñu demee bay tàgg jigéen naan jigéen école la bu ñu demee ba nga xam ne dañ ñi jigéen magasin la suñu borom subhanahu wa taala tagg leen lool teg leen wàccuwaay boo xamante ni tegu fa kenn damay wax ni ñoom dana sëkk ñu tiitaroo li nga xam ne moom la leen yàlla sëdd ci alquranul karim wax naa ko ci sama njalbeen dana sëkk ñu tiitaroo martaba bi nga xam ni moom la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ndax jigéeni jàmbaar ci lislaam yàgg na fi jigéen yàgg naa jàmbaare ci lislaam jigéen ñi ñoo soutenir lislaam ba mu agsi fi mu agsi jigéen ñi ñoom ñoo dese woon lislaam di ko conduire ba mu àgg fi mu àgg te itam képp koo xam ne gàddu na raayaw lislaam boo gëstoo ci sa ginnaaw di nga gis jigéen waaye di nga xam ne jigéen a tamit mooy kila la mooy ki la jur wara kulla kulli uh, mar'a nee nañu góor gu nekk wala wara kulla rajulin imraatun góor gu nekk boo gëstoo da nga gis ni ci sa ginnaaw am na koo xam ne moo taxaw ci sa ginnaaw bu ko defee kon ñoom mën nañoo tiitaru mën nañoo tiitaru ndax sayyidatuna Khadija moo l'islam ci alalam soutenir l'islam ci cofeelam ndax ba ñëpp foñe yonente bi moom moo ko jublu moom moo jël yonente bi teg ci kawam keroog ba nga xamee ni keroog ba nga xamee ni jóge na xaarol xiraa ñëpp di ko daw naan day daanu ay rab wala boog day say sayidatuna xadija moo wee ci moom demal ko ci ko ab ñaankat demal ko ci seetkat ba mu xamal ko ni ko kii li ko dal du seytaane waaye naamus la mu jël ko taf ko ci boppam bokk ak moom alalam bokk ak moom këram jural ko ak njabootam gérer ay mbiram yépp jël ko teg ko ci aw yoon ñu ànd ko ñoom ñaar mu jël alalam def ko ci lislaam ba lislaam taxaw kon gàcce nga laa ma jigéen ñooñu sayyidatuna adi khadija radiallahu taala anha moom itam yonente bi nee na woon mooy li université bi nga xam ni seen xaaju diine mën ngeen a dellu ci moom di ko di ko fa jële waaye tamit gis nañu ni jigéen ñooñu ni ñu taxawoo woon lislaam ak mbooleem soxna yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku ne am na rôle boo doon joué ci biir lislaam joué nga ci role boo xam ni ku ko dégg ca jàngat ko dangay xam ni lu mënut woon a ñàkk la góor ñi bu ñu musaana dem xare xaswatul ba ak bu mu mën di doon jigéen ñi ñooy maase takku ñenn ñi des ci kër gi de dalal soxna yi fi nekk bu ñu gaañee wala ñu rey seen borom kër ñu di leen dalal di leen yiir di leen jox ñu lekk ak naan di garde dëkk bi ànd ak ñoom ca front ba di leen di ñi nga xam ne dañoo gaañu ñu di leen faj waaye ñi nga xam ne dañoo soxla lekk wala ñu soxla naan ñu di leen jàppale ca loolo kon ñoom itam yàgg nañoo liggéey ci lislaam waaye yàgg nañoo joxe seen seen wàll ci biir li nga xam ne mooy yaatal al islaam bu ko defee kon li nga xam ni moom la ñuy xaar daal ci jigéen ji di ko xaar ci ku góor ki mooy kenn ku ci nekk àq ji la war sa digganteek sa moroom nga jéem koo matale sa kemtulaay kàttan loolo bokk na ci li nga xam ne dana neexal sëy bi dana tax itam jigéen gi ci boppam rôle bi mu war a joué en tant que nit ku jonge en tant que ku man borom këram en tant que man këram ku man itam waa këram mu mën a feeñal loolu mën a génnee tamit li nga xam ne mooy ay feewam ak i tigtagam ba nga xam ni yow di nga bëgg ci moom yow ko góor waaye jigéen jee góor gee tamit ngir mu mën a feeñal mbëggeelam ngir mu mën a feeñal tamit contentement wala mbégte moo mu am ci yow wala cawarte gu mu am ci yow yow itam faw nga joué rôle bi nga war a joué ba moom itam mu wan la ne la moom mii bëgg na la waaye tamit ku la fas yéenee jàppale la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen gi gën ci jigéen ñi mooy jigéen goo xam ni soo ko xoolee danga nga bég ci moom waaye tamit soo ko digalee dana def say ndigal waaye tamit soo ko aayee dana bàyyi say aaye li nga xam ne moom nga ko aaye waaye soo ko mu wattul la boppam waaye mu wattul laa tamit alalam loolu ittifaaq la ñu ci am ñëpp dëppoo nañ ci nu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax loolu waaye tamit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen gi gën ci jigéen ñee tamit mooy ki nga xam ni bu ko góor boroom këram soxlaa muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon dana wuy ji boroom boroom këram ndax nee na na ngeen moytandiku bu baax a baax nag boroom kër bi nga xam ni moo la yilif yor la ci biir kër gi soxla la ca amoo benn ngànt nga di ko gantal ndax bu boobaa guddi googu wala bëccëg googu na nga xam ni malaayika yi dañuy yendoo di la rëbb di fanaane di la rëbb ba keroog ngay tuub dellu si sa borom kër kon kay loolu mën nañu mooy man sa borom kër wala boog moom mooy joge ndax te bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen gi gën ci jigéen ñi mooy jigéen joo xam ni su meree borom këram wala borom këram mere ko day yëkkati ñaari loxoom teg ci ñaari loxoy borom këram wax ni ko fii ma toog du ma fi jóge duma lekk du ma naan du ma mus benn tib lu dul ni danga ni ma jéggal naa la danga ni ma gërëm naa la kon jigéen gi noonu la war nooyee noonu la war a mokkee noonu la war a nooyee diggante moom ak borom këram waaye noonu la war a mokkee diggante moom ak borom këram lépp ngir da bànneexam ndax suñu borom waaja laaleel na ko noonu suñu borom préparé na ko ngir loolu su ko jéemee rek loola ko mën ko defee kon mbokk yi ñi nga àgg ci fi nga xam ne fi lañ war a yëkkatee suñu jotaay bi di leen jox daje nag ci fii ci WF TV incha allahu bu ñu fi dajewaatee nag dinañ wax maandu gi xam ne nag góor gi war na koo maandu diggante moom ak soxnaam yi nga xam ne moom la yor ci biir kër gi nan lay màndoo ci ñoom ak nan lay doxalee ba nga xam ni kenn ku nekk da nga mën a gis sa bopp ci biir sëy bi ca doo gis ni yow mii kat dañoo favoriser sa moroom bàyyi la waaye doo gis ne tamit dañ laa ginnaawal ñoo ngi nuyu bu baax a baax ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci caméraman bi rawatina Serigne Moussa di nuyu bu baax sëñ Yaquba di nuyu bu baax ñi nga xam ñooy ànd ak ñun ci Facebook bi di ànd ak ñun ci YouTube di ànd ñun ci Twitter di ànd ak ñun itam ci. seen télévision bi nga xam ne mooy télévision valeur fii ci VFtv di ànd ak ñun itam ci mbooleem yëngatu yi nga xam ni ñu ngi koy yëngatu wala yi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee di ko jàllale ci biir groupe yeeg yu mel noonu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen bala ak ci di leen bala ak seen mbokkum be maam Thierno Birahim Tall ñu ngi leen di jaar bu baax baax di wax a salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ci jërë ngeen jëf